président Macky Sall ñëw joxuñu vingt hectares fii ñu taxaw nii te vingt hectares yi ñu ko implanté ay services ñoo ko implanté ci ndigalu président Macky Sall ba yàlla dogal tey jii nii ñuy ñu ñu terrassé ko ba mu toll fu mu toll nii ci terrassement bi nag li jotoon na xew yëpp xam nañ ko parce que ki nga xam ne mooy Babacar kan di préfet moom moo ñu jàppale woon pour ñu mun ko terrassé te boobu teewuñu ko it mu jàppale ba ñu terrassé ko ba egsi fii tey yàlla dogal ñu terrassé ko ba borné ko jël terrain jox ko seen borom ñuy dox. boo ñu am suñu ay papiers nga xam ne moom la ñuy wax autorisation de lotir ñu téye ko suñu loxo ñu war ko séddale ci service yu ko war a am préfet taxaw ne loolu du fi amee na bloqué loolu loolu la ñu bëgg a xam au nom de quoi te yaakaar naa ni ab réew bu amee président ba président wax ñi ci ginnaaw li nga xam ne moom seen devoir mooy maanaam appliquer li président wax. Mhm. mais dinañ sant ki nga xam ne mooy président bi nga xam ne moo ñu jox fii ñu taxaw di sant liggéey bi. ci xeex bi jàpp nañ si bu baax ba ñu egsi fi ñu egsi nii tey. Babacar moo ñu jàppaloon démb mu dem dox pour que ñi may ñu ñu mun ko terrasser en attendant papier yi génn mais ginnaaw bu ñu changé gouverneur Dakar Alhassane Sall bu mu ñëwee ba tey Alhassane Sall bu ñu jëlee gouverneur Dakar ba tey ñun boobu lañ commencé am problème kon suñu problème ñaar la Alhassane Sall ak Babacar kan tax ñu koy def ñoom ñoo xam ne ñu koy def parce que de un nanguñoo recevoir Babacar nañ koy lettre lettre nanguñoo recevoir kon moom mu ngi def ay defam. te ñu ngi xam lu muy def lan la ñu ngi koy topp pour mu recevoir nangu ñoo recevoir mu ñuy boole ak ay nit yoo xam ne xamuñ dara si dossier kon li tax mu koy def moom moo ko xam waaye ñun lañu bëgg a xamal askan bi te di ko xamal sénégalais yi di ko xamal président Macky Sall ne ko sa taxawaay gis nañu ko ni ñuy taxawoo ba joxuñu 20 hectares bii ba président Macky Sall bind ñu leer pour deuxième 20 hectares dafa ñu bind pour beneen deuxième 20 pour Ibel Lac Rose ginnaaw bii bu mu paree ba féetee boor li tax président la république joxe ndigal Babacar Kane bu ko tere. parce que lan la dafa bëgg a jàppale ki nga xam mooy Sipres du ragaluñu ñuy wax Sipres da bëgg a jàppal tànk parce que mu ngi koy ruux naan ko demal nga def lever nga defal say plan nga dem implanté ji fan nga implanté fii ci ay kër jàmbur ci ay fondation jàmbur ci ay implantation jàmbur ginnaaw bu ñu bornee ba commencé tabax suñu ay kër fii la ñuy taxaw dëgg dëggal suñu bopp parce que Babacar Kane dafa am lu ko war loo xam ne def ko Babacar Kane suñu impense mu ngi ko téye si loxoom te impense calculé depuis 2018 la ñu calculé parce que li xew dafa garaaw toj ay kër te recensé wuloo moo xëy fii toj ay kër te amuloo recensement ginnaaw toj bi nag dañ doog def recensement fii Babacar Kane si boobu moo de recensement bi calcul impense bi moom moo nekkoon président commission bi nga xam ne moo doon calcul impense bi suñu bordereau vert ci ba nga xam ne mooy bordereau euh, bi mu ngi ko téye Babacar Kane mu ngi ko téye te war nañoo jox loo xam ne toll na ni deux milliards euh, et la ñu war a jox ci xaalis Babacar Kane mu ngi mu ngi teg toon concam non seulement joxuñu impense mais suuf si nga xam ne président Macky Sall jox nañu ko mu ngi koy bëgg a tegaat tànk pour lan la au nom de quoi déposé ñu ko war a déposé ba pare fu mu nekk dañuy xaar pour ñu joxuñu ordre bu ñu joxoon sax ñu dañuy mars vendredi bii ñëw incha allahu rabi loolu donc mooy wax ñun parewuñu pour jóge fii te waajuñu pour jóge fii fii ko fi nar a jël da ngay jaar ñu kaw cadavre